bu fekkee dafay des mu doon benn structure de coordination boo xam ne bii dafay lëkkaloog trois communes yi ñu mettre ko en place muy coordonner li nga xam peut-être dafa lik dafa lënkale euh, communes yi muy lu jëm ci affaire électrification muy jëm ci affaire vaar yi muy jëm ci affaire ramassage des ordures loolu la population yi wax tey ci Rufisque Est loolu mooy position Rufisque Est donc loolu effectivement ñu ànd ci ak ñoom xam ne lii te nañ ko depuis le début que ne Rufisque tey ni muy doxee dañu war xol doxalin bi parce que Ville de lu ak luñu mëna wax kenn du ko mëna a rayer de la carte Ville de da fay exister ba abadan yenen villes fi nek muy ville de Saint-Louis et autres nekkatuñu ay ville ay commune lañu mais terewul ba légui nit ñi dañu wax ville de ville de Saint-Louis pourquoi nit ñi bëgg duggal ci bop nit ñi naan way réforme bi da fay dafay Ville de Vildervisque non au contraire parce que Vildervisque yi fi dox man nek na conseiller depuis 2002 depuis ci Njawar Njawar ak léegi man suis actuellement le premier adjoint au maire de la ville de Rufisque tay Rufisque ci diggante bobu lu mat 80 milliards waxuma ay ay ay ay budget de mais de exécution luñu exécuter exécuté milliards exécuté nañ ci ville de Rufisque mais boo boolee seen def def def ci investissement investissement la wax muy defar ay tali defar euh, tabax matul 4 milliards bo boolee ñoom ñëpp seen investissement ñu né lolu dafa bax ci Tëngéej mais quand même nañ ko xolat lolu mënul bax ci Tëngéej c'est pas possible donc lolu bu fekkee dafa am ñeneen ñu taxaw naan way nañu xolat li dañuy wax pour seen bànneexu bop aujourd'hui ville dañ war a bu fekkee da fay exister dañ ko war réformer mu nek forme d'intercommunalité maintenant ressources yi ñu jox ko commune yi communes yi liggéey xam kan mo fi nek maire commune wala maire ville ñun

di ñun ñu ngi fi woon kii te boo demee ci dëkki àll yi sax raw nañ ñu tey mais loolu la lañu war a xalaat en tout cas ñun loolu mooy suñu taxawaay euh, moom la waa moom la ñu gëm moom la waa commune Rufisque STO gëm acteur yëpp ñi nga xam ne dañu nekk dans le développement moom la ñu gëm.